بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk yi ginnaaw loolu noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suura al an'am ci kàttanu borom bi ñuy jël tey ñetti aaya aye 71 72 73 ñetti aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala dañ ci jàngal juróomi mbir juróomi mbir yooyu bi ci njëkk mooy xubhu ridda wa suu aqibatiha sunu borom mu ngi jàngal di ñu won di ñu xamal mbonuk murtad mbonuk murtad ak ki murtad mujj gi bon gi muy mujj murtad mooy génn ci lislaam génn ci lislaam nag ki koy def ay wax lay def walla ay jëf am na wax yoo xam ne boo ko waxee da ngay génn ci diine ji am na jëf yoo xam ne boo ko jëfee génn nga ci lislaam murtad nga murtad nag mbon gënu koo rëy moo tax ñu war a góorgóorlu sunu kéemtalaayal kàttan ba ñu moytandiku wax yoo xam ne daf ñuy génn ci lislaam walla jëf yoo xam ne daf ñu ciy génne bu ngeen jàngee nawaqidul islaam xam ngeen ne loolu lu wér këng la mbir yooyu ku ko def mooy yow pare nga ci diine ji ni mu amee lu yàq njàpp nga jàpp ba pare war a julli am lu génn ci yow ñu ne la sa njàpp yàqu na walla nga woor am loo def walla am lu dugg ci yow ñu ne la sa koor yàqu na naka noonu ci aj ci jaamu yàlla yu bëree bëri ni nga koy defee ba pare ñu ne la lii nga defoon de toj na yàqu na noonu la amee ci islaam am na jëf yoo xam ne boo ko defee da ngay murtat da ngay génn ci islaam ku génn ci lislaam nag xam ngeen ne yéeféer lay doon moo xam mu ngi julli moo xam julliwul moo xam mu ngi woor lu mu mën a def ci lu baax yàlla du ko nangu lu dul mu tuubaat delluwaat nekk jullit moo tax mu ne xubxu ridda mbonuk murtat dara gënta bon nga nekk jullit ba caag nga nekk yéeféer moo xam dañ laa neexal dañ laa jox alal moo xam dañ laa réeral ah ak yu demee noonu ak lu mu mën a doon mbon gënta wees jullit nekk ci islaam ba mu neex ko mu ne nekkatuma ci te kuy def loolu mu jëm du baax loolu mooy bu njëkk bu ñuy jàng ci darsu tey ñaareel mooy xurmatu ijaabatu ahlil baatil lima yaduuna ilayhi min al baatil tey danañ jàng araamal gi islaam araamal ñu lay woo ci loo xam ne du diine nga dem di ci wuy ji ñu lay woo ci bokkaale di la woo ci bidaa di la woo ci loo xam ne lislaam def ko ñaaw lu baaxul loo xam ne ab jullit warul teewe fu ñu koy defee ñu la ci woo nga koy fekkee loolu mbokk yi dafa araam innama taa fi l maaruf laa taata li maxluqin fi masiyati alxaaliq koo mën a topp koo mën a wuyu na nga ko wuyu ci topp yàlla ak topp yonent amma ngay wuyu ji ci loo xam ne du diine bokkaale la wala lu demee noonu loolu moom dafa araam rawatina nag ñi lay woo sax ay caaxaankat lañ te tey loolu ñun ñëpp ñoo ci war a bàyyi xel léeg-léeg di nga gis ci dëkk bi ay nit organiser dara daal di defar seeni lettre seeni soutien ak seeni xawma nangam ak nangam ñëw daal di koy joxe ne am leen ñu ëpp ci ñun dem di wuyu ji te rawatina ñooñu bu fekkente ne ahlul baatil lañ ay nitu caaxaan lañ kenn waru leen wuyu ji ci loolu ñuy wooye woote ndax yonent bi nee na man kassara sawdaa qawmin fa huwa minhum képp ku bëril mbooloo ay nit yonent bi nee na yaag ñoom yéen a yem kon ñu moytandiku bu baax ci wuyu ji ñooñu nga xam ne ay nitu caaxaan lañ ci caaxaan yooyu nga xam ne moom la ñuy woote bi ci tegu mooy laa huda illa huda allahi taala njub amu fi lu dul njubu yàlla njub amul ci kaw suuf lu dul njubal yàlla lu waay mën a woote ne man lii may woote ku ci ñëw da ngay jub te mu wuuteeg njubal yàlla ku fa dem da ngay réer doo jub gis nga loolu moo tax tey ñu bëri ci dëkk bi réer ndax dafa bëri ñu woote te woote gi ñu woote ña leen wuy ji yóbbu ñu leen ci njub moo tax fu ñu mujj ci mboy mboy gi lañ jëm yaakaar ne ñoo ngi ci lu baax fekk ci lu bon lañ nekk ndax njubal yàlla rek moo mën a jubal doomu aadama te yàlla waxoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci quran in tuti uhu tahtadu yàlla waxoon na bu ngeen toppee yonent bi jub yàlla waxoon na yonent bi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim maa ngi giñ ci sama màggay yow muhammad da ngay jubalaate ci yoonu jub bi kon nag nañu yëg ne kaw suuf fii ñu toll tey kenn mënu fee jub lu dul ku jaar ci yoonu yàlla ak yonent amul beneen système amul beneen programme bu mën a indi nit ñi ci mbaax lu dul diine yàlla ji moo tax dina doy waar trop léeg nga dégg ñu naan sëñ diw du morom ndax moom li mu def sax yonent bi defu ko moom yonent bi dafa xeex moom xeexu moom ku ko xeex la ba muy xeex loolu mooy wax bi ah moom bi mu ñëwee di woote ku ko yónni ba muy woote xam nga lu gën a garaaw ci Sénégal mooy yëkkati ay turu kilifa di leen jegeel yonent bi di leen gam-gamle maanaam yonent bi kenn warul yëkkati nit naan xool leen yonent bi daa mel nii moom mu mel nii yonent bi def lii mu def lii yonent bi wax lii mu wax lii yonent bi am lii mu am lii loolu dafa jaaduwul sax yellul yonent bi amul moroom sallallahu alayhi wa sallam amul moroom koo yëkkati di ko jéem a tollale ak yonent bi yow yaa ko yëkkati waaye waa jooju moom du yëkkati boppam ñëw ja yonent bi da ngay da ngay dëngal misaal bi rek ci xale bi waroon gaynde jële ko ci àll bi yóbbu ko seen kër naan papa kay xool mbaam bi nu mu bëree kawar papa ji sëpp ci balcon bi ne ko laa ilaha illallah du mbaam gaynde gi xool xale bi ne ko xam nga yow xamoo ma kii moo ma xam waaw ñun ñi tamit ñu yëkkati suñu kilifa yi di leen jéem a nattaleeg yonent bi ñun xamuñu waaye seen kilifa yooyu di woy yonent bi di ko tagg guddeeg bëccëg yonent bi tere woon leen nelaw ba ñuy tudd askanele seeni bopp yonent bi wala ñu naan nangam ci yonent bi kon ngay xam ne ne ñooñu yonent bi du seen morom waaye suq yi ci tuus bi nag nga xam ne moom ñooñu duñu dara ñooñu bu leen neexee ñu wax lu leen neex waaye seen kilifa du wax loolu dafa araam ñuy nattatle yonent bi ak mbindeef yi alquran moo ñu ne yonent yàlla moo ne qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid qul innama ana basarun mislakum man de yonent bi xoolal mu ne mbindeef laa comme yéen moom yonent bi wulida kama wulida al bashar dafa juddoo ni nit ñi juddoo ni nit ñi juddoo moom af- amul ay affaire kéemtaan yàlla tëmbalewu ko kaw asamaan mu daal di jóg daal di daanu ci kaw suuf si yàlla génnewu ko ci biir géej gi génnewu ko ci montagne yi démb laay dégg ci whatsapp bi ñu envoyé ma benn sonore boo xam ne son boo xam ne waa ji mu ne yonent yàlla Moussa dafa gis benn xeer jël yatam bi dóor ko ci xeer bi xeer bi toj ñu gis ci xeer bi benn waay di julli wax yoo xam ne non Sénégal ak a neex nee na Moussa waaru ne waaw biir xeer nit nekk ci di julli ak wax yi fu mu teere yëpp allahu akbar ci ci soobaan bi lañ koy indi nisfu soobaan ne waa ji nekk na fi nangami at ci biir xeer bi di julli waaye julli yooyu mu julli yëpp ak lii mu fi mu nekk yëpp soo jullee ñaari ràkk ci àjjuma mu nekk ci digg nisfu soobaan moo gën wax yoo xam ma anzal allahu biha min sultaan am nga ko envoyé nañ la ko ndeysaan benn waay envoyé ma ko depuis Angleterre di ma laaj ndax lii wér na maa ni ko xoolal tey li garaaw mooy ñiy wax yëpp kenn doon leen ci qaala allah qaala rasul te diine foofu la tegu na ngeen jël qaayida bi mu nekk seen qaayida al isnaadu min ad diin al isnaad min ad diin nga wax ci diine ba pare dañ laa war a wax waaw li nga wax fu ko yàlla wax ak yonent point soo amul li nga wax wérul su dul loolu ku nekk wax lu ko neex wala la zalika la qaala man shaa ma shaa su ma neexee léegi ma ne ci taakusaan man ak Jibril ñoo doon naan ataaya ku weddi ah léegi maa ngi ñoom maa ngi moom ñoo tàqali ko ba ci jàkka ji ma ne ko damay tafsir mu dem ah ah ku ci ku ci mun dara ah mu ngoog keneen ne la ah yow jibril ci jibril nga nekkoon man maak yàlla ñoo nekkoon léegi waaw xoolal loolu rek ku nekk rek su fekkee ne loolu la fu jëm fu jëm diine nag du loolu diine yàlla nee na yonent nee na moo ngi nii yàllaa ko wax moo ngi nii yonentoo ko wax moo ngi nii foog mu am fuñ ko fuñ ko wéer foog mu am cëslaay su dul loolu rek ku nekk wax lu la neex te loolu xoolal tey moo tax loo gis rek kii naaw na dem kaw asamaan kii puus na géej kii poñe na jibril kii soxna malakal mawti tëf bët bi toj gis nga ku ne di wax lu ko neex wala loolu amul ah man di dégg naa ko fii ci Sénégal ñu ne diw moo toj bëtu malakal ma da ko dóor kurpañ bët bi toj malakal moo di kan moo ñemee toj bëtam policier bu taxaw fii ci ci ci ci fii rek fii ci angle bi kan moo ñemee fekk foofu policier boobu nga toj si bëtam waxuma laa kooku malakal mawti mu tax yenn yi dafa doy waar daal yal nañu yàlla jubal yal nañu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko kon li mu bëgg a wax ci laa huda illa huda allah taala mu ne ay laa diina illa lislaam benn diine amu fi lu dul islaam islaam dong moo fi nekk te wa man yabtaxi gayra al islaama diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xaasirin yàlla wax na inna diin inda allah al islaam ñeenteel mooy wujub al islaamu lillahi taala dafa war ci ñun dafa jaadu nag te jot na ñun ñëpp ñu jébbulu ci yàlla léeg-léeg nga dégg ci mbedd mi ñu ne la jébbuloo wóor wala du ngeen koy dégg waxu dëgg la de dëgg la de wax boobu bu ko kenn weddi waaye fan nga koy def mu wóor fan loolu mooy wax bi ndax ci kuy dee ku mel ni yow nga koy def ku judd ku mel ni yow kuy tële kuy feebar kuy am ay métit kuy am lu neex ak lu naqari kooku ngay jox sa bopp soo déggee ñu ne jébbul wóor na mooy ci yàlla ah wa man ahsan mimman aslama wajhahu lillah kan moo gën a rafet koo xam ne dafa jébbal jëmmam yàlla suleymaan ba ko ba mu ak bilqiis balqiis lan la balqiis waxoon aslamtu maa suleymaan la waxoon walla aslamtu maa suleymaan fan lillahi rabbil alamin maa ngi jébbulu ànd ak suleymaan waxul maa ngi jébbulu ci suleymaan parce que jébbulu ci nit dafa araam lan la wax maa ngi jébbulu ànd ak suleymaan maa fan mu ne lillahi rabbil alamin lan mooy baatu istislaam lan mooy baatu jébbulu mooy al istislaamu lillah mooy nga jël sa bopp jox yàlla lépp doo xool lu la neex doo xool lu la naqari doo xool guddi doo xool bëccëg doo xool dafa sedd doo xool dafa tàng doo xool dafa neex doo xool dafa métti doo xool dama wér doo xool dama feebar sa lépp ngay jox yàlla loolu mooy al istislaamu lillah wal inqiyaadu lahu bi taa nga wommutu ci topp ko olof yi dañuy wax ne ku ñuy diri doo taamu fu sa ndong di jaar bu benn waaye ñëwee ne faraj ci sa tànk ndeyjoor bi téye di xëcc ah xam nga ku téye sa tànk xëcc moom départ ak moom nooy def da ngay dox topp ko est-ce que lu tax doo dox topp ko parce que sa fi fi ngay doxee la téye rawatina bu nee kurus sa ñaari tànk yi nga ni bëra daanu ci suuf mu diri ndong gi départ est-ce que yow yaa ko naan non droite gauche jubalal moytul xeer boobu moytul yaa ko koy wax moo tax ñu ne ku ñuy diri doo taamu fu sa ndong lii di jaar ñun nag yàlla moo ñuy diri est-ce que war nañ taamu fu mu ñu jaaral non non non non suñu waxee jóg leen dañuy jóg suñu waxee toog leen ñu toog suñu waxee wax leen ñu wax suñu waxee noppi leen ñu noppi suñu waxee julli leen ñu julli bu ñu waxee woor leen ñu woor lu mu ñu wax rek dañ koy def mooy wal inqiyaadu lahu taaw la ca tegu mooy wal baraatu min ashirk mooy bokkaale foog ñu bàyyi ko fekk jullit a ngi bokkaale nekkagul jullit bokkaale day yàq jëf comme vinaigre nu mu yàqee nu mu yàqee lem da koy yàq bokkaale lu mu dugg da koy yàq alxuraan wax ne law ashraku la habita anhum ma kaanu yaamaluun cay bu ñu bokkaale woon seen jëf yëpp yàqu bal sax alxuraan yoxoon yonent bi la joxoñ baaraam ne ko la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxaas cay soo bokkaale woon yow sayyidina Muhammad sa jëf yëpp ay yàqu te ëllëg yowmal qiyaam da ngay perte kon bokkaale baaxul bokkaale baaxul bàkkaar yëpp yàlla dina ko baale ba mu des bokkaale innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wa ma lizalimina min ansaar yàlla nee na li wóor tey mbir képp ku ma bokkaale araamal naa ci yow aljanna kon bokkaale baaxul waaye bokkaale lu sew la ashirku axfa min dabibi nam la moo gën a sew tànki xorondom xam ngeen xorondom ah nu mu mel dafa ñuul xorondom dafa ñuul moom ëpp mbelantaan ah jërëjëf moom xorondom boobu di dox ci 3 heures du matin fii zulumati sawda muy dox ala hajari sawda ci kaw xeer wu ñuul ñu ne la xoolal tànk yi ndax di nga ko gis nga gis tampon tànk yi ba pare fii zulumati leyl muy dox ci xaaju guddi moom dafa ñuul muy dox ci xaaju guddi di dox ci xeer wu ñuul encore ñaata yu ñuul la ñu ne la xoolal tampon tànk yi ndax di nga ko gis noonu mu lëndëmee noonu mu ñuulee noonu mu sewee noonu la bokkaale mel da ngay gis ku jaamu yàlla bay tëdd daal di bokkaale li mu defoon ci journée bi yëpp yàqu na benn waaye bu koy bi mu ko doon misaal dane da ngay jënd gerte caaf nga xiif jënd gerte caaf mbuusu cent franc wala juróom nga daal di boxoñ nga sotti boxoñ ba xob yëpp naaw nga ne fëf fëf xob yëpp naaw nga sex nga commencé lekk di yëy sa gémmiñ gi daal di fees del del del del del del ba nga xam ne fi mu nekk nii lan moo ci des ah sa ah déedéet sa xam nga kay ba mu mokk lu ci des wanaas ndeke dugal nga benn bu nëb bu nëb daal di dugg gémmiñ googu li muy fees nga doon préparé wann bi nga yéeyee bu nëb gémmiñ gi nu muy def day changé goût bi nga sentir ne li ma doon sàq mi de du du lii kon léegi nooy def lu tax nga yàbbi ko ah ah lu tax woon noog noonu la bokkaale mel xoolal li nga yëy ak benn bi dugg yàq ko ña- ba ban moo ëpp li nga njëkkoon yëy moo ëpp waaye xoolal benn moo dugg yàq lépp mooy pommiteer bu nëpp ci biir saaku rek moo tax bokkaale baaxul yal nañ ci yàlla musal ku nekk nag ci ñun war a peeg boppam ba du bokkaale ci sa lépp nag ci sa lépp bokkaale ñaari façon la ak shirkul akbar ak shirkul asgar ak shirkul akbar yuxriju min al milla bokkaale bu mag day génne nit ci islaam bu ndaw bi du génne nit ci islaam waaye dina yàq sa jaamu yàlla yu bare bari te mun na laa yóbbu safara kon jar naa xam moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam bokkoon ci ñaanam yow yàlla maa ngi muslu ci yow bokkaale bu ma yëg ak bu ma yëgul yow yàlla maa ngi muslu ci yow bokkaale boo xam ne yëg naa ko ak bokkaale boo xam ne yëguma ko parce que mën ngaa bokkaale te yëgoo ko mbokk yi kon dafa war ci ñun ñu jébbul ci yàlla waaye taxawal julli wa iqaami salaa wa itqaa'i llahi taala bi fi'lil ma'muur wa tarki nahy man dafa war ci ñun ñu taxawal julli dafa war ci ñun ñu ragal yàlla waaye dafa war ci ñun ñu jëfe li yàlla santaane waaye mu war ci ñun ñu bàyyi li yàlla tere juróomeel mooy taqrir al miaad wal xisaab wal jaza danañ jàng tey aaye di ñu saxalal suñu rendez-vous bu ñu am ñun ak yàlla ëllëg yowmal qiyaamati laa budda bil miaad foog ñu dellu ci yàlla muus ak waane xam ak réer gàtt ak gudd ami pexe mënta tere nit teew ëllëg ci kanamu yàlla tabaraka wa taala la budda rendez-vous la kenn ci ñun du absenté fokk ñu taxaw ci kanamu borom bi loolu nag doomu aadama daf koy waaj tey jii mbokk yi ci ñun ñi toog fii kenn ci ñun bu amoon rendez-vous ak président de la république da ngay waaj wala doo waaj damay laajte da nga koy waaj da nga koy préparé ok te président de la république rek la ah président France bu weesu nu mu tudd ah Macron ma ok kenn ci ñun moo mën tey rendez-vous ak moom nooy de da ngay waaj wala doo waaj waaj bi ak waaj bee bu gën a ban ngay gën a waaj ah bu France bi ngay gën a waaj kon nañ leen tëbb France bi président Amérique bi nu mu tudd Trump kon boo amoon bu bu Trump ak bu France ban ngay gën a préparé ah Trump lu tax parce que moo gën a fort allahu akbar allahu akbar la ilaha ndeysaan ñu am rendez-vous ak mbindee fii doomu aadama yi ñu waaj ñu am rendez-vous ak yàlla kenn du waaj te suñu rendez-vous ak yàlla nuroowul ak suñu rendez-vous ak doomu aadama yi suñu rendez-vous ak doomu aadama tromp da ngay yaay sang sa bopp ah ah yaay parfum sa bopp ah yaay solal sa bopp ay yére ah suñu rendez-vous ak yàlla dañ lay sang dañ lay sang dañ lay parfum dañ lay yeew suñu rendez-vous ak trompe da ngay dugg ci oto bi wala ci avion ah ah suñu rendez-vous ak yàlla ci kees lañ lay dugal ci kees lañ lay dugal kees suñu rendez-vous ak Trump da ngay ñëw nga toog ci benn salle bu ñu climatisé ay fauteuils yu nooy suñu rendez-vous ak yàlla ci biir suuf si la pax dañ lay suul kon du benn de kon ban lañ war a gën a bu fekkoon ne am nañ xel ban lañ gën a waroon waaj ah benn borom xam nee na ni ma gis ñuy def néew suñ ko ko defoon muy dund sax du ci génn fii ñun ñuy dund nii ñuy dund suñ ñu jàppoon sàng ñu ba ñu set sàng ñu ni ñuy sàngee néew ñu takk ñu buum ni ñuy takkee néew bi ñu dugal la ci kees suul la ci suuf wala sax suuluñu la noonu ñu la yeewoo bare rek ñu jox ay booy ay bolde ñu ne wax leen ak moom balaa ngay tekkeeku balaa ngay génn ci noonu ñu la def ah waxuma doo tekkeeku de waaye ñu jox booy yi se- dix booy ku nekk ñu jox ko bolde ñu ne bismillah ba ba muy tekkeeku dóor leen gars yi balaa ngay tekkeeku dana metti de ah waaw léegi nag imagine la ñu def ko nit fekk mi ngi dee ba pare ñu jox ko yàlla ñibbi ba koog moom est-ce que boobu wóor na yàlla waxoon na Moussa Moussa laa taaman makri hatta tara nafsaka fil janna bul wóolu lu la nga gis sa bopp biir aljanna kon war na noo góorgóorlu war na noo delloo suñu xel war na noo xam ne dañu war a jaamu yàlla beneen pexe amu fi bu ñu mun a musal lu dul jaamu yàlla beneen yoon amu fi bu ñu mën a jaar yegg lu dul yoonu yàlla yeneen yëpp ay caaxaan la yi ngeen gis tey ci Sénégal ay yuuxóog ay wooteeg ay diw moo mën léeg diw nangam ak yëpp ay caaxaan la su ngeen ko gëmee ay caaxaan la bu ngeen ko gëmul ay caaxaan la waaw yoon wi gën a gaaw boo xam ne nit bu ci tegoo baax nit bu ci tegoo dugg àjjana mooy yoonu yonent bi te ku ci jaarlu suba di nga réccu alxuraan moo ñu ko wax yawma yauddu zalimu ala yadayhi lu tax bis bu nit di matt ñaari loxoom lu waral loolu yàlla lu tax waa ji di réccu di matt ñaari loxoom lu tax yaa waylataa lay wax wooy man laytani lam attaxis fulanan xalilan aka neexoon duma jaar ci yoonu diw diw du nekk sama xarit yaa waylataa wooy man du loolu la waa ji di wax su ma xamoon ma daal di jaar ci yoonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon nag leer na nañ li fi des mooy am xel xelu xëlu dégg na lu mu wax de am xel xelu xëlu am xel mooy lan ah nga am xel conscience après xel moomu nga xelu ci nga xelu ah, xalaat après boo xalaatee ba nga xam ne gis nga nga xëlu lan mooy xëlu mooy nga daw fa firru ila allah nga daw dem ci yàlla loolu moo fi nekk waaye boo jëlee sa xel nga abale ko am na ñuy abale seen xel wala nga dof dof lu ba ñu tafu sa xel sa kalpe bu ñu ko tafoo di nga ju mun nga mun nga amaat kalpe ah wala sa pièce yi carte d'identité passeport carte banque bu ñu ko tafoo mun nga ko amaat ah ah ok sa xaalis bu ñu ko tafoo mun nga ko amaat ah sa portable bu ñu ko tafoo mun nga ko amaat waaye bu ñu tafoo sa xel xam nga looy njëkk a perte ku ñu tafa xelam xam ngeen lu muy njëkk a perte ku ko xam suñ tafoo sa xel looy njëkk a perte sa diine buñ tafoo sa xel sa diine ngay njëkk a perte parce que laa diinu li man laa aqla la al majnun rufi anhul qalam ku dof kenn di ko bindal baakaar wala parce que amul xel moo tax su xel mi demee li ngay njëkk a perte mooy diine ndax diine xel lay àndal ndax da nga war a xalaat ñaata yoon la leen wax inna fi zalika la ayatin li ulil albab inna fi zalika la ayatin li qawmin yaqiluun ñu dul xalaat baaxuñ wa laqad zarana li jahannama kasiran min al insi wal jinn lu tax xam ngeen mu ngo kon nag li fi des mbokk yi mooy góorgóorlu jéem sunu kemtalaayal kàttan yëg ne danañ dajeek yàlla kenn du muus ba doo dajeek yàlla amul rëcc amul rawuwaay suñ dajeek yàlla lan la wal xisaab yàlla daf ñuy àtte def suñu àttee daf ñuy fay man amila saalihan fali nafs wa man asa wa ma rabbuka bi zallamin suñu borom wax na qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aaya yi bii nekk suñu kanam dafa gaaral yéeféer yi dañoo gaaral lenn ci way gëm yàlla yi ne leen ñun de dañoo bëgg ngeen jaamu sunu yàlla lu ngeen mën après ñun tamit ñu daal di jaamu seen yàlla yàlla daal di digal yonente bi saa salaam ne ko delloo leen wax bi lànkal na nga leen tontu qul waxal anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna ndax nun da ngeen a bëgg nu woo nu jaamu anadu ay anabudu ndax da ngeen a bëgg ñu jaamu min dunillahi leneen keneen walis yàlla da ngeen a bëgg ñun ñu dem jaamu keneen leneen lu dul yàlla loolu ngeen bëgg loolu nga xam ne ñun buñ koy jaamu maa laa yan faw naa du nu jëriñ wala ya duru naa du nu lor xoolal ndeysaan jaamu loo xam ne topp loo xam ne amalu la benn njëriñ amul ci yow intérêt munu laa jëriñ munu laa lor te loolu la doomu aadama yi def anadu ndax anabudu dañuy jaamu dañuy woo dañuy ñaan kan min dunillahi keneen ku dul yàlla kii ñaan yàlla moom dafa leer daf ko wóor ne man yàlla mii may woo mun na maa jëriñ mun na maa lor wala kii jaamu yàlla dafa gëm ne yàlla mi may jaamu daf may jëriñ daf may lor su ma ko jaamu mu jëriñ ma su ma ko ñàkkee jaamu damay loru waaye ay xeer ay lam ay petaaw ay xaaw ay ndombo ay bàmmeel ay nit ay garab ay ëkk lan la la jëriñ du la jëriñ du la lor laa yadur wala yanfa ah da ngay gis ni ñuy julli ba pare nga gis ku naan nii di bind nii yéen seen digganteeg yàlla ki julli ba pare jël baaraamam di bind ci siyaada yi est-ce que bind na bind am na fa ah dama leen laaj su ma nee nii bind est-ce que bind naa fi ana bind bi anamu bi waa ji yëkkatee loxo dafa waroon xelu sax mu ne waa man ana li ma doon bind anamu ah waaw mu xool ndax fii li mu doon bind mu ngi fi waaye déedéet dañ laa la boo bindee ba pare boo jullee ba pare bindal allahu nga fóon ko xalal su nit ki amoon xel wallahi yu bëri du ci dugg am na ñoo xam ne ndeysaan seen xel dañ koo taf ana du min dunillah ndax dañuy woo di jaamu di ñaan keneen ku dul yàlla koo xam ne wala loo xam ne maa laa yan faw naa loo xam ne du ñu jëriñ ndeke jaamu yàlla dafa war a jëriñ nit ñaan dafa war a jëriñ nit yemul ci bañ ñoo jëriñ waaye wala ya durru naa du nu lor mu ne luñ dërëm su boobaa lan moo ñu ciy fekk wa nu raddu ala aqaabina kon de danañ dellu ci sanu ceddo ga narji'u kuffaaran baada an kunna muminin kon ay ceddo la ñuy mujj a nekk dañuy nekk ay yéeféer képp koo xam ne da ngay jaamu yàlla ba ci yàgg nga arrêté nga dem di jaamu ay bàmmeel wala nga takk ay xaaw ak petaaw ak gàllaaj di def yi kenn xamul da ngay delluwaat nekk yéeféer sikk nekku ci parce que loolu du diine moo tax mu ne suñ ko defee wanu raddu dañuy dellu ala aqaabina ci sunu ceddo sunu kéeféer gi kéeféer goo xam ne baada is hadanallah ginnaaw ba nu yàlla jubalee xoolal nit yàlla génn ko ci bokkaale indi ko ci tawxiid mu nekk ci ba caag rek mu daal di delluwaat ci bokkaale yi é booy yo foofu dafa métti baa ngi fële boisson ceeb yàpp yéen foofu xumul dara amu leen dara dara neexu fa ah affaire yi affaire lekk la ndeke ay mbalka boisson ndeysaan baada is hadaanallah ginnaaw ba nu yàlla jubalee xoola yàlla jubal la nga yeew fajar di dem jàkk di julli bàyyi musique di jàng alquran bàyyi fréquentation yu bon yi bàyyi milieu yu bon yi nga nekk ci nekk ci nekk ci nga jékki-jékki rek daal di delluwaat ci mbon gi ginnaaw bala yàlla musalee soo delloowaat foofu lan ngay mujj nekk ceddo ngay nekk da ngay nekk yéefér sikki nekk ci parce que yàlla génne woon na la waaye delluwaat nga ginnaaw bala yàlla jubalee mu ne kallesi mu mel ne waa ji nga xam ne ishtahawathu këf na ko sànq na ko kan ashayatinu shaytaane yi gis nga de waxuma sax yàlla sax waxul ashaytaan ndax bu waxoon ashaytaanu kon ñaata shaytaane lay nekk benn xam ngeen lu tax waa ji àl ko seytaane yi ko këf du ba sax benn ay seytaane bi jiitu musique bi jiite musique seytaane bi jiite làmb ji seytaane bi jiite football bi seytaane bi jiite carte bi seytaane bi jiite njaaloo bi seytaane seytaane ah yépp ñoo associé ci moom ku nekk jàpp fenn kii jàpp benn nopp kii jàpp nopp kii jàpp tànk kii jàpp beneen tànk kii jàpp benn loxo kii jàpp beneen loxo bi kooku fu muy rëcce kooku pare na benn seytaane rek attanoo ko waxuma la ak nag ay seytaane yu bëri yooyu ma tudd yëpp ay seytaane ko jiite bu nekk seytaane moo fa toog waaw di tëral programme am gaa yi topp ko xoolal football bi tey nit ñi di jaamu ba ci ñun ñi ah am na ci ñun ñi yoo xam ne xaw ma ay Liverpool ak ay Barça ak ay Real ak fi niñ ko maîtriser maîtriser wuñ ko sunna yonent bi gars yi match yëpp lañ xam waaw Lionel Messi Ronaldo di werante waaye man reeruma bi su dafa jeex rek ma tëddi lu la teree reer ndax dañoo gagné sa match sa équipe ñooñu ñooñu gagné ñoom ñu ngi fële sangu di reer yow nga tëdd fii di mettitlu ñooñu xamuñu sa papa xamuñu sa yaay wallahi ci youtube bi laay gis benn xale bu xale ci dëkku arab yi dañoo gagné équipe am mook papaam bokkuñu woon équipe papaam faral équipe bi moom mu faral équipe bi équipe papaam gagné papa ji di ko ta di yuuxu di ko reetaan xale bi dem jël kalashnikov ne day rey papa ji di yuuxu ah di xaru karabin yooyu la jël maqdoom yooyu ñuy rëbbee yooyu la jëla papa ji jàpp ci suuf mu téye bopp bi di jooy xale boo xam ne dafa bëgg a rey papaam ndax lan ndax xaw ma Barça moo kii moo gagné xaw ma ban ki beneen équipe bi xoolal loolu musiba boobu fu ñu jëm ci doomu jullit ndeysaan jooyoo ngir dañuy xeex lislaam jooyoo ndax julliwuma tey jooyoo ndax jànguma alxuraan tey jooyoo ndax defuma samay askar jooyoo ndax jooyoo ndax lan ngay jooy dañoo gañ a Barça looy jooy tey Messi dugalul bi looy jooy tey Ronaldo dugalul bit loolu ngay jooy ñu seetaat suñu bopp gars yi dañ leen xoolaat suñu bopp est-ce que réellement li ñuy wootewu mu ngi ci ñun affaire bi du ay wax de affaire bi ay jëf la du ay wax ay jëf la inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum mu ngi mel ne waa ji nga xam ne seytaane yi ko fëkk biñ ko fëkkee fu ñu jëm ak moom fil ard xayraana seytaane yi ko këf ci suuf ma nga gëlëm nag waaw seytaane yi bu nekk bi jaar nii ndeyjoor bi jaar càmmoñ bi jaar ci kaw bi jaar ci suuf bi jëm penku bu nekk dem te ku nekk ngi jàpp ci moom poñe ñii jaar ni ñii jaar ni ñii jaar ni waajooju ñu jàpp di ko yóbbu kon nu muy def day gëlëm moo tax tey dañoo gëlëm xamuñu fuñ jëm ku woote ñu topp ku woote ñu wuyu ji waaw lu nit ñi wax ñu gëm ko benn waaye nee na sénégalais yi seen bopp yi suuf su nangu la loo ci ji mu sax loo ci ji rek mu sax billaahi da ngay xëy suba kaalawu ñëw toog salaamaaleykum waaleykum salaam nga ne man am naa pàkk boo xam ne buñ ci jiyee xaalis mu sax nga dégg gaay ni est-ce que wallaahi dëgg la dëgg la soo bëggee wax ñu ne gis nga booy weddi di dee yow xamoo kii loo loo leen wax rek day day sax suuf seen bopp yi suuf si dafa nangu dafa am fumier am engrais loo leen wax lu dul yàlla nee na yonent nee na rek day day dugg loolu mën na nekk puus géej wala ñu ne maa puus géej ni daamu la puus géej non vraiment ma puus géej kii mu ne asamaan bi da doon daanu ma téye ko que les montagnes yi man maa leen àndal kee mu ne Jibril ñëw na indil ma ma xaw ma mosquée divine divi lan ah ah de la divinité mosquée boobu mook mosquée baytil maamuur ci kaw asamaan ñoo jàkkaarloo ey ndeysaan baytil maamuur mooy néeg bi nga xam ne moom la yàlla wax ne bis bu nekk soixante-dix mille malaaka dañ fay dugg soixante-dix mille malaayika bis bu nekk la de tey malaaka yooyu dugg dootuñu yeneen kay ñooy ñëw te bis bu nekk allahu akbar suñu borom moo bëri le suñu borom moo giijal moo tax mu ne bu ngeen ma jaamoo baax na bu ngeen ma weddee yàlla doylu na leen walillahi ala nnaas xajjul bayt man istataa ilayhi sabil wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin ganiy yàlla mu ne waa asamaan yëpp bu ñu àndoon juróom-ñaar malaaka yeeg tuur ci suuf nit yeeg jinne yi ñoom ñoom ñu ànd jub xocc kenn ku nekk di jaamu yàlla du yokk ci nguuru yàlla gi tarfatal ayn ñoom ñëpp bu ñu àndoon kàccoore ba raw firawna du wàññi ci nguuru yàlla gi tarfatal ayn in ahsantum ahsantum li anfusikum su ngeen defee lu baax seen bopp ngeen ko defal defalu leen ma ko man yàlla so dafa war a leer ku jaamu yàlla ba seytaane yi jàppale dañ lay këf am na ci ñun ñoo xam ne bu match yi commencé duñu am jàmm bu ñuy nodd sax duñ ko dégg ah loolu fu ñu ko teg topp ay match la hawla wala quwwata ay yéeféer yoo xam ne programme bi xamu leen ne football xërëm la loolu xamu leen ko xërëm la dafa bokk ci système yi franc-maçon yi jàppee adduna bi ba léegi yéen xamu leen loolu football bi ngeen di gis dafa bokk ci système yi franc-maçon yi gouverner adduna bi léegi joueur boo xam ne ñaata la jar benn footballeur boo xam ne ñaata la jar ah ah ay 39 milliards benn nit ñu jënd ko muy football bi loolu fan ngeen gis ci àdduna bi ku am loolu président de la république yi amuñu loolu président yi sax la ñu waroon fay loolu ndax ñoom dañoo ñëw pour liggéey lii réew mi di defar tali yi di defar ay hôpitaux léegi jour yooyu ngeen ñu fay ay milliards yooyu ñoom luñ def du ngeen ma tontu allahu akbar football dugal bal rek football rek ñu fay la ñaata ñaata milliards nga wax yow 39 milliards allahu akbar milliards xam ngeen milliards ñaata la ah milliards junney million ñu ne booy xëyee ngay dépasse bis bu nekk ñaata 25 mille par jour ñaata at cent ans du jeex te nit dina dund cent ans waa ji ñu koy fay par weer ñaata année bi yëpp football bi match bi jeex ñu fay ko ñaata 39 milliards te yow boo ci amee benn cent ans ngay def du jeex ngay dépasse bi su nekk vingt cinq mille francs ñu fay la benn année bi ñaata 39 beneen année bi ñu fayal la 39 cinq ans yi ñu fay la 39 ñaata la ci football kese nga def da ngaa football rek ñu la fay la loolu football kese nga def football dafa leen ne da ngaa football daw camp yi ba camp yi ñëwaat match bi jeex nga am gaa yi yeewu leen nan yeewu nan leen yeewu fo buñ ciy fay ni 39 milliards fo allahu akbar moo tax léegi religion la da ngay dégg ñu naan la le jeu de football wala dégg leen loolu man de dégg naa ko le jeu de football ah dafa am yàlla football allahu akbar loolu kalimatu kufru la le jeu de football yàllaay football bi di tey moom da ngay waaru quoi ah yàllaay football tey da ngay waaru wallaay ñu ngi leen di dugal ci kéeféer goo xam ne su ngeen ci duggee du ngeen ci génn beneen bi mooy ñun ñi nekk fii ñun luy suñu yoon ci football ab sunnit ab ibaadu rahman luy yoonam ci football yow bu fekkoon ne sax ñun xam nañ ñooñu yéen ñi nekk fii ci biir jumaa ji ban équipe moo ci gën a fort ci équipe bi Barça ah ndax yéen kenn ngi toog fi dafa xam Barça ku ku nekk Barça dafa xam daf koo xam ni muy wootante ak moom téléphone kooku xam papaam ak yaayam ak maamam ak waa këram kooku nekk ci loxoom kan la ci yéen. nga xam ne tey jii bu ak ku deewoon seen kër kooku dina jaale si. yë yëkkati leen ma seen loxo waaye ngir yàlla kenn ci yéen ku xam ñooñu man damaa soxla ñooñu quoi. naa am ku ma dimbali ndax ndax ma mën a wax ak ñooñu kenn téléphone comme yéen xam ngeen leen yéen a ngi leen di suivre guddeeg bëccëg ñooñu dañ leen xam ah bu ngeen am ñu ñooñu dinañ ko yëg kooku am 39 milliards yi kan la kii ah Ronaldo la ok moom ndax daf ñoo xam xam nañu xam na suñuy pap xam na suñuy yaay xam na suñuy problème ba pare ñun ñu nekk fi di werante ci ay mbiram koo xam ne xamuñu nga nekk fi di ci werante bay xeex wala mu jaral la doo reer mu jaral la yàlla di la woo kaay julli ba ba marché bi jeex amul problème quoi ndax lii xel la moo tax wax naa leen sànq ne ku amul xel diine ngay njëkk a ñàkk xoolal Ronaldo ñun xamuñu xamu sax fu Sénégal nekk wala mus na fi ñëw mën na ñëw Sénégal Ronaldo laa wax ndax mën na ñëw Sénégal waaw ba pare ngeen koy faral moom xamul sax yéen fu ngeen nekk xamul am na benn Abdallah mu nekk fële géej waaye xam na ma moom ndeysaan day jooy suñ ma suñ ma suñ ma gañee ah benn Moussa mu ngi dale buñ ma gañee du reer ñun ñoo ñàkk fayda lii lii musiba la lii du jàmm yaay bu suñ xel dem bu nu nax gis nga li alxuraan bii di wax nii wallahi dëgg la koo xam ne toppoo yàlla ah istahwathu shayatin fi l ard hayran xoolal yàlla mu ne lahu ashaabun yaduunahu ila alhuda itina te kat mu ngi am ay copain ñoo ñaa ngi koy woo nan ko ñëwal fii bàyyil lii ñu ngi koy waar dellu sil sa xel itina waaye du ñëw de yad'uunahu ñu ngi koy wa ilal huda ci njub ci njubal yàlla ak njubal yonent waaye du ñëw lu tax du ñëw parce que xel mee dem na nga leen wax ne qul inna hudallahi huwal huda na ngeen yëg ne njubal yàlla mooy dëgg njubal yàlla du ay football du ay bëre du ay musique du ay xumb xumb du ay caaxaan ay woote yu kenn xamul loolu du njubal yàlla njubal yàlla daa leer nañ yàlla amul diine bi lu ñuy nëbbatu amul diine bi loo xam ne dañ ko jagleel kenn yàlla diine bi amul ay tabala amul ay sabar amul ay ndënd amul ay fecc amul jaxasoo góor ak jigéen amul yàlla diine bi dafa set dafa sell inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban qul inna hudallahi huwa alhuda wa umirna li nuslima li rabbil alamin yàlla moo nu digal nan ko jébbulul moom yàlla loolu la ñu digal umirna loolu la ñu digal man yonent bi ak jullit yi li ñu yàlla sant mooy ñu jébbulul yàlla borom bi tabaraka wa taala wa an aqimu salaata ñu taxawal julli fu nu mën a toll julli dañ koy taxawal diine bu ci julli génnee julli ga diine ba yàqu na man tarakat salaa faqad kafara ku bàyyi julli yéeféer nga ku bàyyi julli yéeféer nga man taraka salaa faqad kafara ku bàyyi julli safara nga jëm ma salakakum fi saqar qaalu lam naku min almusallin fa xalafa min baadihim xalfun lu tax luy seen mbir adaau lsolaa wattabau shahwat dafa mel ne ba yonent bi demee sahaaba yi dem aima yi dem ña remplacé yàlla mu ne dañoo sànk julli adaau lsolaa dañoo ba alak julli luñ def mu ne wattabau shahwat ñu topp bànneex yi mooy bànneex yi mooy li topp théâtre yi topp télé yi topp football bi topp topp topp topp yàlla nee na fa sawfa yalqawna xayya illa man taaba wa amana wa amila amalan salihan mbir yi leer na de ñun ñoo fi nekk rek di dof dof lu waaye dafa leer nañ nañ nañ nañ ne bëccëg amul lu lëndëm ci diine yàlla ji sunu borom nee na wattaquuhu na ngeen ma moytu moytu leen ma buur bu tol na yàlla bu nee moytu leen ma nag ñu war a moytu wa huwa allazi moom yàlla mooy ki nga xam ne ilay ci moom tuxsaruun ci moom lañ leen di dajal ëllëg yowmal qiyaamati kenn du manqué wa huwa allazi mooy yàlla buur bi nga xam ne xalaqa bind na asamawaati asamaani wal ard ak suuf bil xaq ci dëgg maa xalaq na asamawaati wal ard wa ma baynahuma batilan asamaan ak suuf yàlla bind ko ci caaxaan afa xasibtum annama xalaqnaakum abatha da ngeen a yaakaar ne yàlla daf leen bind ci neen déedéet wa huwa allazi mooy ki nga xam ne xalaq bind na sàkk na amal na asamawaati asamaani wal ard ak suuf bil xaq ci dëgg mu ne wa yawma yaquulu bés ba ñuy wax kun fa yakun ñaari baat yaa ngoog kun rek fa yakun nekkal mu nekk te wax jooju qawluhul xaq mooy waxam dëgg waaw ñun bu ñu bëggee defar dara tey kenn ci ñun bu bëggee tabax ndax day xëy rek tabax ah ay études yu yàgg budget xaalis bu bëri lay uti ay matériels yu dul jeex ak ñu koy defar wala ak fu mu koy defee yàlla du noonu yàlla moom kun fayakun nekkal mu nekk gars yi nee nañ wa amruhu baynal kaafi wan nuun kun ah diggante kaaf bi ak nuun rek affaire bi daal di am waaw lu tax du sunu morom loolu moo leen du sunu morom mooy sunu borom waaw waxam jooju kun fay kun mooy waxu dëgg waaw yenn saa nga dégg ñu ne diw de mooy borom kun du dëgg waaw dañ koy jaay rek dañ ko tuumaal dañ ko koy tuumaal de du borom kun de borom kun kay kenn la mooy yàlla subhanahu wa taala mu ne moom sunu boroom wax jooju mooy waxu dëgg wala hu ñeel na ko moom yàlla al mulku nguur gi moom dong mooy buur bi koo fi dégg ñu ne buur la déglu ko ay fan wala ay weer léegi ñu ne la bàmmee la ma ngi nii mu ne yow ma bis boo xam ne yun faxu danañu ëf fi suuri ca buftu ba mooy bisab yowmal xiyaam waaw buuq kal qarn mu ngi mel ni benn loolu ngeen naan keleron mu mel ne béjjën yàlla bi mu bindee àddina bi ba léegi am na malaaka bu mu ko jox malaaka bi dafa en genou jublu penku jël déggam bi ne ko nii di déglu ni seq ko boobu yàlla bindee àdduna ba léegi moom noonu la def du gees du xef du wakkatu du ne loxo bi dafa def nii sonn na xaaral ma changer position loxo yi boobu ba léegi mu ngi sama gémmi ngi xaar ma génne ko boobu ba léegi laa wax benn position boobu mu def def nii mu ngi no def noonu bët yi ni mu ajoo woon ba léegi noonu la ajoo dellu siwaatu li muy déglu yàlla mu ne ko ëffal mu ëff ñëpp dee même position mu defaat noonu ci lu neex yàlla ci ay at yàlla mu ne ko ëffaatal mu ëff ñëpp dékki waaw mu ëpp moo tax ñun dañoo def dara da ngay gis fii ku julli journée bi rek tey mooy macha allah waa dem naa jàkka ji lu 24 heures bi quoi da def dara macha allah booy woor naa weeru koor gi quoi macha allah macha allah qiyaam naa quoi qiyaam bi dañoo jooy ba sonn quoi te loolu da ngaa def dara loolu dara di xoolal kii bi yàlla bindee àdduna bi léegi dafa à genoux seq mbiib gi ne cëkk benn côté la ne kaj de nii di déglu bu ba léegi changé wul orienté wul yonent bi mu demee leelatul isra wal mi'raj dafa gis jibril mu ne jibril kii kan la mu ne ko mikail mu ne waaw moom de lu tax du reetaan mu ne dafa ragal ne bu reetaanee yàlla dugal ko safara musul reetaan yaa ngeen malaaka yi laa yaasuna allah wa yafaluna ma yumaruun yàlla mu ne yow ma yunfaxu fi suur bis bu ñu walee buftu bi mu ne keroog alimul xayb yàllaay ki xam kumpa allahu akbar wa shahaada ak li feeñ keroog yàlla kese la moo xam kumpa waaw kan ko andi ko wirni goɗɗo ko wona kanko anda hay dara so wona o haalane o anda alimul xaybi wa shahaada yàlla moo xam kumpa ak lu feeñ waxoo moom yàlla alxakim mooy ki xereñ alxabir mooy ki dañ kumpa léeg-léeg nga dégg ñu ne yow yaa dañ kumpa dañ koy wax nit loolu dañ ko tuumaal de nit dañul kumpa nit daa bañ lu ko ump ki dañ kumpa mooy kenn mooy yàlla ba pare moom yàlla alxakim dafa xereñ lu mu def noonu la keneen lu mu def mën nañ ko changer amma yàlla moom lu mu def noonu la ku ko weddi rek xoolal sa bopp sa jëmm ji bul dem fenn xoolal sa bopp rek nga ni sama nopp yi fu mu nekk neexul neexuma léegi nag bi nga ne neexuma nga wax sa nopp yi buñ ko dindee fan lañ la koy defal acca bismillah na kenn yëkkati loxoom ah kon seen nopp fi mu nekk neex na leen bëri nag non nag kenn essayé mu ne man man vraiment sama bëri fi mu nekk neexul ñu seet nga proposé ñu seet fan nga bëggoon ñu ñu defal la ko amul fi ko yàlla def foofu rek la nekk foofu mooy xakim bakkan bi nag gémmiñ gi nag booboo gën a garaaw xanaa kenn dina noonu sama gémmiñ ma fi la war a nekk sama suufu jumbax bi wala mu ne fi la war a nekk sama ginnaaw bu ma tibbee ma ni nii kon du rafet ngay dem ci ginnaaw nii di sol naan nii yëf yi di tuuru fii boo dankee ne nii ba mun a karaj boo nee nii dara du wadd ndax fi ko yàlla def foofu la jaru sax sonn wala allahu akbar loolu mooy hakim mooy koo xam ne lu mu def kenn mënu ko dindi yàlla mooy xereñ loolu mooy xereñ yàlla hakim ba pare xabiir expert la allahu akbar ci lépp nag xoola géej gi moo ko bind la fa nekk kan moo ko xam moo bind asamaan ba bëlee gaa yaa ngi jàng jeexalaguñu asamaan bis mu nekk ñu gis lu bees géej gi gaa yaa ngi jàng boobu ba léegi jeexagul bis mu nekk ñu gis lu bees suuf si gaa yaa ngi jàng boobu ba léegi jeexagul bis mu nekk ñu gis lu bees semaine bi passé dama demoon fu ñu naan maison de torture ma dem fekk ma mbonaan moo xam ne am na 109 ans 109 ans mbonaat xoolal rabu àll yooyu ak mbonaat ni mu tuutee ñu naan ma bi am na 90 ans bi am na bi am na la ilaha illallah ba pare lu doy waar mooy ndeke mbonaat suy jur day nen waaye bu nenee du ko bóof mook jaana yam moom bu nenee dem na yoonam nit ñi ñooy récupérer nen bi daal di koy gas ba mu xóot daal di koy suul léegi xoolal suuf si moo koy bóof ba mu toj su tojee xoolal liir bu tooy xepp bu ndaw boobu day toj suuf si daal di génn dem yoonam kan moo ko toor kan moo ko toppatoo foofu ci biir suuf si te tey kenn ci ñun ñi toog bu ñu xaree suuf si dugal la ci 24 heures buñ ñee xool da ngay dee mbonaat boobu xoolal ci biir nen bi la nekk nekk ci biir suuf si nga dégg ñu naan xoolal ñu bind ci benn tableau wan la mbonaat bi nen bi def na fi 3 mois bi am na 4 mois bi am na nangam ay case lañ ko defal nga xam ne bu génnee bu doom bi génnee rek du mun a dem fenn ci case bi lay ne gars yi ñoo xam ne doom bi judd na mu ngi nii ndeysaan ñu daal di koy jël dem di ko yar kan moo def loolu yàlla waaw du nàmpal waaw mënaat du nàmpal loolu yëpp laaj nañ ko waa ji mu ne du nàmpal mbonaat amul affaire ak nen walla ak doom moom bu paree rek dem na léegi doom bi nen bi ci suuf lay nekk après mu génn ah ba pare laa ilaa boo jëlee yax yi ah ñu la ci wax benn bu nekk da ngay xam ne yàlla dong mooy yàlla yàlla amul lu mu def hasard ñun ñoo xamul ñoo jàngul yàlla deful dara hasard ñun ñoo xamul ñun ñoo jàngul ndeke mbonaat mën naa denc ndox ay weer du naan comme ni ko gëléem di defee moo yàlla afala yanzuruna ilal ibili kayfa xuliqat ah bu ngeen xanaa xool leen gëléem ni ko yàlla bindee ndeke foofu moo gëléem ñooyam toog ay weer du naan ndeke mu ngi denc ndox beneen mbonaat soo ko tegalee lekk du lekk lépp tuuti lay lekk lu tax ndax danaan bu jeexee suba du ma lekk naa lekk tuuti rek denc ba suba yow tey bu ñu la tegaloon benn ginaar nooy def tuy ba pare naan ndax desut mburu mi dafa tuuti waaye kilo rek ngeen fi teg keroog benn waaye moomu yónnee ci whatsapp bi benn waaye mu naan mbokk yi man de damaa feebar damaa dem ci docteur bi mu tere ma lekk nee na ma léegi naa lekk ñeenti palaatu ceeb rek ma ne waaw li muy wax ni ak ñaari kilo mburu ñeenti kaasu café ma ne waaw nga ne da ngaa feebar dañ laa tere lekk ah génne bis buñ ko lay lekkal mu si baam mbokk jullit yi li mooy sunu dars tey ñoo ngi ñaan yàlla mu jéggal ñu njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. tey nag ñaari question rek la ñuy jël quoi ndax dama amaat beneen dars léegi incha allah pour mu ne gaaw.